waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production dans son domaine. ah bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex bi. ci njëkk mooy 1945 date bi ci topp mooy 1989 ñaari date yooyu 1945 ak 1989 lu tax moo wax 1945 parce que 1945 dañoo génn ci guerre. dañoo génn ci guerre boo xam ni guerre mondiale la woon guerre bu metti ay millions yu millions yi doomu aadama ñàkk ci seen bakkan bi guerre bi jeexee ñi nga xam ni ñoo ko séqoon daan ni nañu toog waxtaan nañu toog waxtaan waxtaan woo xam ni lu mel ni dootul amati mukk jëye ju mel ni xare bu mel ni dootul amati mukk bi ñu toogee waxtaan ñu ni léegi li nga xam ni moo mën a indi jàmm ci àdduna bi mooy nañu fexe ba ñaari bopp téye àdduna bi na ko ñaari bopp téye bopp bu njëkk bi moom waa Amérique ñoom ñoo ko jiite ñu jiital benn tëralin bu ñu tuddee libéralisme ak capitalisme dinaa wax léegi lu mu doon beneen bopp bi jamono yooyu Union soviétique moom moo ko jiite te moom mu tëral lépp ci socialisme ak communisme dañoo ni léegi bu ñu bëggee àdduna bi am jàmm nañ ko tënk ci ñaari bopp yooyu ñii ay capitaliste la ñu ñii ay communiste la ñu capitaliste yi lu ñu wax dañoo ni ñoom àdduna bi nañu fexe ba ñi nga xam ni dañuy góor góorlu te mën a fàggu dara ñu am lu ñu dunde waaye ñi nga xam ni góorgóorluwuñu te fàgguwuñu dara ñoo ñu suñu yoon nekkul ci ñoom maanaam capitalisme xamul jàppalante yow boo ñàkkee dañuy jàpp ni da ngaa yaafuus ki am dañoo jàpp ni moom moo góorlu ñoom daal jàppalante ci biir nit ñi jàppalante ci biir pénc mi boolewuñ ko ci seen politique loolu moom mooy capitaliste yi ku dégg capitaliste dégg nga capital maanaam capital capital mooy xaalis ñoom capital donc la ñuy dox capital donc la ñuy toppatoo te loolu américains yi jiital ko ñoom bañ nañ ko ba ci seen xaalis ci seen xaalis boobu muy dollar dañ cee bind ñu ñun yàlla la ñu gëm mu mel ni xaalis mooy seen yàlla in God we trust boo ubbee boo jëlee dollar loolu lañ ci bind dañ cee bind ni ñun yàlla la ñu gëm loolu nag boo ko gëstoo ba ci biir li ñu ciy gis mooy nekk ne yàlla ji mooy xaalis bi rek noo mën a def ba fàggu euh, xaalis bu euh, bu booy dundee ñu jàpp ni yow mii kat ku góor góorgóorlu nga ku ku ku ku ñàkk yaafus nga kon yow euh, baax na li nga am ci biir pénc mi mais ki nga xam ne amul dara moom problème am la moom moo moom moo yaafus moo ñàkk bopp ba amul dara ñeneen ñi di communiste mooy ñi nga xam ne mooy beneen bopp bi donc benn bopp bi dañu ne ñun nañu fexe ba nit ñi di wut xaalis rek ñoom loolu rek lañu jiital na nit ñi di wut fàggu xaalis rek beneen bopp bi nag ñoom ñu ni nañu fexe ba wuute bu mu am si suñu diggante maanaam nañu fexe ba ñii bu ñu am lu bari ñii am lu lu lu néew nañu fexe presque ba ñëpp tolloo ñu ni waaw loolu naka lay mën a amee ba ñëpp tolloo mu ni li muy mën a amee nii dong la diine nañ ko génnee ci ñuy doxalee suñu àdduna parce que ñoom li ñu jàpp mooy diine boo ko dugalee ci ñu ñuy doxalee suñu àdduna rek wuute am suñu diggante donc nañu génnee diine ci ni ñuy doxalee suñu àdduna te doxal suñu àdduna ak suñu xelu bopp maanaam bu ñu bu ñu wax lenn yàlla moom moo ñu tegtal lii moo ñu dégal lii nañ na li ñuy def rek na nekk loo xam ne ñun ñoo ko digal suñu bopp mu nekk ñaari bopp yooyu séq àdduna bi 1945 ba 1989 donc Euh, sama mbokku jigéen ñi li ñuy jàpp mooy 1945 guerre mondiale ca la jeexee ña séqoon guerre ba ci la ñu toog waxtaan bi ñu waxtaanee dañu léegi àdduna bi nañ ko séddale ñaari parti benn parti bu njëkk bi ñoom alal rek la ñuy wut beneen parti bi ci topp nee nañu nañu génne yàlla ci ni ñuy doxalee suñu àdduna je crois que loolu leer na mais noonu dañu gis ni bi ñu doxalee noonu àdduna bi ni buñ ko defee xëy na dinañu am jàmm biñ ko doxalee teewul muy am ay jafe-jafe ba léegi yenn saay mu am ay jàppante jàppante yoo xam ni dafa doon mujj dem sax bay xaw a jegewaat beneen guerre mondiale adduna bi di doxee noonu ba 1989 alors bi ñu yegsee 1989 dafa am dafa am benn président bu ñëw Union soviétique ñu koy wax Gorbatchev moom bi mu nekkee président. mu commencé wacc ñoom fa ñu nekkoon dem fekki américains yi donc mu mel ni léegi àdduna bi léegi dama ne la woon ñaari bopp la mu mel ni léegi benn bopp dong la te américains yi ñoo ko yor muy capitalisme muy libéralisme ñu ni ci loolu ci tëralin boobu la ñuy tëralee la ñuy doxalee àdduna bi capitalisme libéralisme waaw mais loolu tamit bi ñu ko doxalee ba jëmmi jamono dem nañu ba gis ni ci guuta la ñuy dugal parce que koo xam ni dafa ni xaalis rek ngay wut ak noo ko amee baax na ki ñàkk bu ko kenn dimbali loolu day indi ay jafe-jafe ci pénc mi dafay indi ay xiiroo dafay indi ay ŋaayoo dafay am ñoo xam ni dañoo am lu baree baree bari bari am ñoo xam ni yoruñu dara mais ñoom dañu ni loolu suñu yoon nekku ci mu indi ay jafe-jafe ci àdduna bi ñu ni waaw léegi naka lañu ñu mën a def ba tabax àdduna boo xam ni jàmm lay am àdduna boo xam ni dal lay am àdduna boo xam ni nit ki day jox cër moroomu doomu aadamam ñu ni naka lañuy def ba am loolu loolu nag bi ñu ko waxee euh, dafa am ay boroom xam-xam dafay jafe jigéen ñi dafay dafa am ay ay boroom boroom xam-xam yu ne kon il faut ñu xoolaat ni ñu tëggee suñu àdduna bi il faut ñu xoolaat yoon yi nga xam ni fa la ñu war a jaar ba suñu àdduna bi nekk yoon wa euh, nekk àdduna boo xam ne day am dal day am naataange day am jàmm ñenn ñi ne loolu day dee diine l'islam solution la ci bu ñu delloo ci lislaam bu ñu delloo ci arxuraan bu ñu delloo ci sunna dinañu tabax àdduna boo xam ni jàmm lay am ak dal moo tax jamono jooju dafa amoon benn conseiller président bu Amérique kooku mu ngi tudd Samuel Huntington Samuel Huntington mu ne ñun suñu noon yi nga xam ne ñoo nekkoon communistes yi daanu nañu waaye léegi nag dafa am noon boo xam ni dafa am doole lool teew dañoo war a jàkkaarloog moom ñu ni ko noon boobu ban la mu ni jullit yi la lislaam la ndax bu ñu deful ndànk nit ñi dinañu dem nekk ay jullit te bu ñu nekkee jullit bari dina nekk yoon woo xam ni ñun li ñu jàppoon da koy da koy da koy nasaxal donc nañu taxaw temm xeex ak diine l'islam ba nga xam ni du yaatu yaatu boobu nga xam ni moom mooy tàmbali di am moom Samuel Huntington di wax lu mel noonu ñu ni ko waaw diine lislaam naka la ñuy def ba xeex ko comme yow nee nga ni moom mooy pexe bi nga xam ni moom la ñu mën a def ba ñun suñu yoon bi ñu tëral mu nekk yoon bi ñëpp suivre diine lislaam nan lañ koy xeexee mu ni dafa yomb lool niñ koy xeexee mooy dañuy jaar ci jullit yi xeex ak jullit yi maanaam du ñun ñooy jóg dal ci jullit yi waaye dañuy jaar ci ñenn ci ñoom dem dal ci ñeneen ña ca des xam nga bu fekkee ne am nga seet lu tuuti da ngay gis àdduna bi tey jii ni mu xaw a euh, ni mu xaw a rëddoo ngay gis ni bu yàggul Iran rek am na fa benn euh, am na fa benn jéye bu fa am ba presque ay téeméeri nit faatu fa waaye la fa am ay jullit ñoo ko def ay jullit ñoo fekk seeni moroomu jullit kalaateel benn bomb ay jullit dee fa maanaam bari na ci luy am yoo xam ni ay jullit ñooy taxaw jàkkaarloog seen moroomi jullit di xeex ak ñoom loolu moom moo nekkoon soon pexe dañu ni nañu fexe ba ñun nañu jaar ci jullit yi di xeex yeneen jullit yi moo tax il faut ñuy def attention bu baax a baax a baax nañu jaar ci jullit yi di xeex yeneen jullit yi tey jii boo demee boo demee dëkk bu mel ni Amérique di nga fa fekk jàkka boo xam ni ka koy jiite imaam ba koy jiite borom ñaari tuuri la waaw imaam ba koy jiite borom ñaari tuur la loolu yëpp. loolu yëpp pour wane ne comme imaam bi ma ngay def loola kon diine boobu dafa mel ni dàqul loolu di nga dem benn dëkku benn dëkku Europe boo xam ni dañoo def jàkka boo xam ne dañ koo tuddee mosquée misk misk maanaam bu ñuy defar sàppe yi góor dee taxaw jigéen taxaw ci wetam góor taxaw jigéen taxaw ci wetam góor taxaw jigéen taxaw ci wetam noonu la ñuy rëddee sàppe yi loolu la ñu tuddee moske mixte daan ni loolu mooy wane dëgg-dëgg nag ni diine yamale nan góor ak jigéen yooyu yëpp ay pexe la yoo xam ni ñoom bind nañ ko seeni boroom xam-xam xalaat nañ ko ni nañu fexe ba islam bu muy yaatu yenn yaatu yi parce que bu yaatoo yenn yaatu yi ak yoon bu muy dox ñun doole ji ñu amoon dinañ ko ñàkk kon nag nañu def attention bu baax a baax ci loolu rawatina nag suñu mbokk soxna yi parce que bëri na ci ay pexe yi ñuy def dañ koy jaar ci soxna yi parce que dañu ni bu ñu amee soxna yi rek ñi ci des day yomb ñu am leen bu ñu amee bu ñu fexee ba am soxna yi li ci des dafay yomb ñu am leen naka la ñuy amee soxna yi nañ leen di wan ay film moo tax mu bëri ay film yoo xam ni sox yaa soxna suñu soxna yi ñi ngi koy seetaan euh, yu yu mel ni ay telenovelas ak yu demee noonu yu ci bëri ci film yooyu ñoom ñi ngi ciy xeex lislaam ñi ngi ciy wane ni lii am na beneen yoon bu gën a baax boo xam ni nit bu ci bu ci jaar jaaree ci lay ci lay gën a tekkee alors loolu il faut ñu def ci attention donc ñu dem ba dëkk tubaab yi ñoom ci seen boppu ñu tënku dama lay jox benn exemple rek léegi ma jeexal tey jii am na ci dëkku tubaab boo xam ni tey jamono ji may wax ak yow am na dëkku tubaab boo xam ni nit ñi dañuy dem di sëy ak doomu tubaab doomu tubaab yi xale yi fooye maanaam da ngay dem ca kay yat doomu tubaab yi xale yi fooye da ngay dem ca kay yat nga ni ko yattal ma soxna mu yattal la soxna def ci awra jigéen ngay sëy ak moom di ànd ak moom. ci ci ci magasin yi gën a mag jëndal ko or jëndal ko jama booy dem restaurant ànd ak moom teg ko mu toog nga reer wala nga añ ba pare àndaat ak moom ñibbi booy tukki tëj sa armoire booy ñëwee ubbi jigéen ñi tamit naka noonu dañuy dem ca kay yatt ni ko yattal ma boroom kër mu yattal la boroom kër def ci awra góor nga nekk ak moom mel ni moom mooy sa boroom kër ñoom dem nañu ba yegg foofu boo leen laajee lu tax lu tax yéen lu tax ngeen di sëy ak koo xam ne amul ruu ñu ni ñun dañu dem ba wóolootuñu suñu moroomu doomu aadama kii moom wóor na ma ni du ma moy sama boroom kër la maa ko moom bu may tukki dama koy tëj ci sama armoire yóbbu sama caabi bu may ñibbisee ubbi ko bu fu may dem ànd ak moom dem nañu ba yegg foofu ci ay yàqu-yàqu ñoom tubaab yi kenn ci ñoom ku tudd Paul Valéry mu ni ñun tubaab yi nekkatuñu sax ay nit ma ndax mu ni buñ ñu sax méngale ak mala parce que bu ñu nee ñun ak malaa yam ñi ngi tooñ mala yi ñu moom moo wax loolu mu ni bu ñu nee ñun ñoo ñoo mala yi ñoo yam ña ngay tooñ mala yi parce que mala yi am na lu ñu jomba def te ñun nag léegi jombatuñu dara ñi ngi def lu ne ñu ni waa mais léegi naka lañu mën a def ba niitee tuuti bokk naka la ñu mën a def ba génn ci ndëgg sërëx bii ñu dugg ba génn ci lëndëm lëndëm gii ñu dugg jëm ci leer ban solution la ñu mën a am benn tubaab bu ñuy wax Philippe Couti foofu laay jeexale jox kàddu bi sëñ Njaxump benn tubaab bu ñuy wax Philippe Couti Philippe Couti boobu Philippe Couti comme Couti yàlla daf koo baaxe mu ñëw senegal bi mu ñëwee senegal def fi ab diir dem tuuba dem daaray kaamil am lu mu fa gëstu delluwaat ci seen dëkk ya daat ne daat ni moroomu tubaab ak tubaab ni bu fekkee ni dañoo bëgg a gindiku génn ci lii ñu ne nekk dëgg-dëgg ay nit ay doomu aadama yu mat ay doomu aadama yu sotti bu fekkee loolu la ñu bëgg ñun ñëpp nañu takk suñu ndigg tegu ci yoonu Touba moom Philippe Couti moom moo bind loolu nekk tubaab kon nag dafa mel ne sëñ Touba am na lu mu indi ci solution pour que nit nekk ku nite parce que nag jàmm bu ñu koy wax ak dal day tàmbalee ci doomu aadama ji day nekk doomu aadama joo xam ni dañ koo defar dañ ko waajal ba nga xam ni li muy wax jàmm lay doon li muy jëf jàmm lay doon lu muy xalaat jàmm lay doon loolu nag sëriñ Touba def cee liggéey liggéey bu am solo boo xam ni sëñ Jaxumpa mii dina am lum ñu ci jukkil daal di ñu koy waxtaane ñu gën a xam ñun naka la ñu war a taxawee ñun ci jamono jii ñu toll pour di dox jàmm pour di wax jàmm pour di xalaat jàmm lool rek moo mën a tax jàmm ak dal am ci pénc mi. yàlla dogal na. émission yi daan am yëpp édition yi daan am daf daan fekk ma nekk poroxaan ci ay xat-xat waaye bi ma dikkee lu ma nawoon Baye Ahmadou rek yokku naa ko ndax jot amut te àddina xat na waaye ku gis mbooloo mi fi ñëw gis niñ ko dikkale da nga xam ne Baye Amadou jox na nit ñi yitte fonk na nit ñi itam ndax addina bi xat na lool waaye saal bi ku nee ngi fi kër gee mu ñu dalaloon muy kër sëñ lamin Faye boroom kër gi ñu ngi koy sant ci sa tur ndax ubbi na këram dalal gan ñëpp te wóor na ma ne jëmm bàyyi Ahmadou rek a tax mu def ko kon sëñ Ahmed nu ngi lay xamal ne Baye Ahmadou bari na lool yitte jàmbaar la lool itam ndax waar wii mu nekk di ci bay yéen la ci nekkal yéen a ko ci bàyyee ndax munta xëy te amut seen ndigal munta gont te amut seen ndigal kon nag bu fekkente ne bi nekkal na leen fi def lu mel nii àddina bépp wuy si ko muy jataay bu ama am solo dañ la koy seereel ñun ñu doon ay bokkam nga xam ko bu baax a baax yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla suturaal professeur jibi Diakhaté wax na dëgg dafa fekkoon Baye du proposé woon ma thème boo xam ne lu ama am solo la te ñu war ciy dox waxtu wu nekk loolu mooy taxawaayu cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la proposé woon comme thème ba ma jotoon cee bind ba jotoon cee bind professeur indil ma xalaat bu am solo boo xam ne xalaat bi wuutee wut ak thème bi maanaam mën nañoo duggante ñoom ñaar mooy jàmm ak stabilité ci am réew loolu mën naa dugg ci feeñal taxawaayu Cheikhul Khadim ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ Touba yitteem yépp mooy xeetu yonent bi am jàmm maanaam sëñtubaa ñëwut fekk lislaam di ab dëkk mu sañc ci ginnaaw dëkk bi tudd lislaam dafa sanc ci biir dëkk bi nga xam ne mooy lislaam jaboote jullit ñépp te loolu dana feeñ ci thème bii nga xam ne moom laa bind muy al ma maanaa jàmm jàmmoo professeur dafa def introduction bu ama ama ama am solo mooy société yu njëkk yi tubaab yi fi ñu nekkoon ci ak ñàkk nite fi ñu nekkoon ci ñàkk xam fi ñu nekkoon ci wedd yàlla ba mu jural leen suufe gi leen dal ak doyadi gi nga xam ne dal na leen wax na ci lu am solo feeñal ci yu bari yoo xam ne li ma ci gën a tënk tam gëm naa yéem nag nga xam ne bi ko professeur waxee dama sursauté damaa mel ni ku tiit mooy loolu professeur wax jëmale ko ci yéefar yi fekk na yàlla waxoon ko moom mooy am na tubaab bi mujje nee na tubaab bi dafa wax ne nun noog mala yeeyam nee na ba ci yàgg sax nee na tubaab bi na déedéet mala yéeru gën ndax mala yi am na lu ñu jomb waaye nun jombu dara loolu nag professeur suñ boroom da ko wax ci benn aaya ci alxuraan mooy ulaika kal an'ami bal humu loolu mooy ñoom ñoo mala yeeyam ba mujj suñ borom ne déedéet ñoom mala yi sax a leen gën maanaam ñoom ñoo gën a réer mala yi loolu nag li nga wax léegi lislaam moo delloo si nit ñi ci ñu nekk nit ni leen yàlla bindee ñu war koo sàmm téye seen bopp doon ay jullit dëgg dëgg dëgg l'islam ma leen ko def bi ngay wax léegi interpellé nga jigéen ñi ne nañ ko fàttaliku waaye même jigéen ñi même jigéen ñi yëkkatiku gi ñu am lislaam moo leen ko jox waaye société yi fi jiitu woon ñuy tuddee les sociétés pré-islamiques mustamaat yooyu mosuñoo teg fenn jigéen alxuraan àdduna ci bu njëkk ku am doom bu dee jigéen da nga koy gas suum ndax da ngay jàpp na yàlla joxu la dara ñu dem ba suñ boroom addu xamal leen na jigéen baat bi yàlla jëfandikoo sax loolu jigéen da ko war di jàngat di ko xam mooy baatu mbég la suñ borom jëfandikoo wa ida bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaari min alxawmi min suui ma bushira bi a yumsikuhu ala ma yahkumun bu njëkk ku am doom bu dee jigéen saxar kanam day lëndëm nga jàpp ne yàlla dalaa doye dal suñ boroom ne atte boobu atte bu ñaaw la kon place bi jigéen am ci diine bañ jox ko li lim moom nga xam ne yàlla dafa tas taswiya góor ak jigéen ci jëf lu baax ñoom ñëpp ñoo bokk yam loolu tubaab yi muy wax jàppewuñu woon jigéen noonu parce que société yooyu dañ daan tayle jigéen ñi ci barab bi carte kaay yi maanaam nit daana jël soxnaam dem carte tay la ko nga xam ne bu buñ ko gañee mu ñàkk soxnaam kon nga jooju lislaam moo ko delloo jigéen léegi nag lislaam jàmm rek la bëgg ci lay introduire ci la professeur introduir ma tëje ko nag taxawaayu sëñ tubaa ci jàmm te incha allah bu jàllee danañ xam ne sëñ tubaa nituk jàmm képp la jàmm rekk la bëgg te jàmm ji ñépp la ko bëggal dana ci feeñ sax ba ci tubaab yi ko génne woon tubaab yi ko génne woon bañu leen en tant que doomu aadama waaye mbañeel gi mi ngi ko aj ci kaw ñàkk gi ñàkk bëgg yàlla bañ koo nangul looloo tax sëñ bi bañ leen te sëñ bee ko waxal boppam moo wax ne lahu tadarraatu fiikum mubgidan lakumu maa tatu tatuubu lahu wallahu qad shahida maa ngi ci seen biir di toroxlul yàlla di leen wan ne bañ naa leen li feeg gis nga sart bi li feeg nangu lu leen suñ borom tuubal ko mbañeel gi day sax ba faw te lii ma wax yàlla seere na ko kon doomu aadama ji sëñ bi bëñu ko ngir li doon nit waaye déedéet li na ci moom la bañ sëñ bi dafa wax ne man lu may bëgg yàllaa tax ma di ko bëgg lu may bañ yàllaa tax ma di ko bañ akramani llaahu bi xubbi fiihi wal buxdi fiihi wa huwa astafihi bokk na ci teraanga yi ma yàlla defal lu may bañ yàllaa tax lu may bëgg yàlla moo tax jàmm jooju nag munta ñàkk ci kenn maanaam jàmm mënta ñàkk ci nit ki ci boppam su wéetee ak su wéttali ko jàmm gën ci moom réew mi maanaam kër gi nga nekk géré ko di boroom kër gi jàmm la jig ndax même boo amoon jàmm te boo geesoo gis ne sa doom ji mi ngi ci fitna walla sa soxna si mi ngi sa fitna wala kii di yeewoo sa kër mi ngi ci fitna sa jàmm dootu ko yëg kon yow jàmm moo la arrangé bu dee am réew jàmm leen jig tàmbalee ko nag ci ki gën a kawe ci réew mi ba ki ci gën a suufee su dee ci wàllu diine nitug diine ki jàmm ko jig ndax dafa jaboot jàmmi boppam doyut mooy su toogoon moom am jàmm xam ne am na ko doyut waaye bu réew mi amee jàmm ci la xelam di gën a dal ci la mën a ci lay gën a mën a amee daluk mën a jaamu yàlla daluk tal boppam loolu mën nañ cee joxe exemple ci kilifay diine yi yeewoo ci réew mi yépp waaye buñ joxañee Cheikh mun Muntaxa teg ko baaraam ci li ko Sénégal jaral li ko jàmm jaral dana mën a yóbbaale ñi ci des ñépp ci xam ne jàmm rekk la bëgg moo tax sayduna abu hurayra radiallahu taala dafa wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax na ne du ngeen dugg àjjana te gëmu leen amu leen imaan du ngeen am imaan te bëggantewu leen yonent waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na du ngeen dugg àjjana te gëmu leen du ngeen gëm te soppante amut seen diggante daal ne ndax duma leen tegtal loo xam ne su ngeen ko defee dangeen am yooyu ñu ne ko aha mu ne da ngeen di siiwal jàmm maanaam dangeen di jàmmoo daal ne lépp lu nit ki di mën a séq ak moroomum jaamam la ca gën mooy jàmm nee na doomu aadama bi boo ko fekkee mu toog boo koy nuyu sax asalaamualeykum nga koy wax ndax xam nga ne jàmm a gën ci moom jàmm gën ci yow mi koy nuyu moo tax mu delloo la ko wa aleykum asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu ajjana ña fa dëkk suñuy nuyoo nuyoo boobu lañ amee taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam maanaam nuyoo jàmm boo xam ne moom lañuy ñuy séq ba ci malaayika yi leen di fekk ci seen biir kër yi salaamun aleykum lañ leen di wax fibtum salaamun aleykum ña nekk àjjana ñëpp bu ñu dajee jërëjëf nañu leen installé ndeysaan maa ngi seen sama xarit sëriñ Cheikh Amar sëñ Modou taalibi sëñ Mbacke Mouhamed maa ngi koy seen ndeysaan di di ku baax di ku gore sëñ Xaadim dañoo jógee gàddu yàlla ñànkaru oto gi ma yoroon paan sëñ Cheikh dab ma ca mbedd ma ni ma duma la fi bàyyi tant que dépanné woo am nañ cinq heures de temps ci yoon wi diggante gàddu yàlla ak Touba ku goree ngi nii barke borom Taïf ma ne ko ñaanal ma ci barkeb sa waa ja nga doon liggéeyal sëñ balaa heure bi déen ma am oto te ñaan nga nangu na am naa boo xam ne yaakaar na moom bala moo pan macha allah jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Cheikh Amar bu sëñ Modou Amar taalibi sëñ Mbacke Mohamed jërëjëf sama waaj waaw ñu installé gàtt ñi rek sëñ Ablaye àggale waxtaan wi tolloon na fu neex jërëjëf man ngeen a wàcce jërëjëf ñii sikkar tubarkàlla dañ ñu fekkoon ci waxtaan jërëjëf Baye Amadou na ñëw toog ana Issa Issa baabu kaay kaay si gër si jolli Issa ñëwal jigéen ma waay waa bàkk waa ngoog bàkku see jéeri borom waa daan ansaar yaa ngoog ñoo dalal sallallahu alayhi wa del si dal sëñ Bamba bala si buri sëñ Mbàkke Maara bàyyi Cheikh Modou Moustapha bàyyi Sëriñ Falilou bàyyi Sëriñ Basiru ak Samul Layin Baara bàyyi Cheikh Abdou Khadir ak Serigne Saliou ak Cheikh Mahmoudou Moutada bàyyi Serigne Touba bi ak Sëñ Baara ngoog bakku Cheikh Jéene ngoog ki doon Serigne Bamba doom yu bari te gisu ko ci na jolli naar ba Moussa na jib bakk waa ngi noonu Seex Jeere la ilaha illallah baay ma doom na dem suma waaj ni nga def sama président ni nga def sama Côte d'Ivoire ni nga def King Fahd محمد تسرير سوق لا إله إلا الله يا شيخ أحمد تسرير سوق لا إله إلا الله أحمد تسرير سوق لا شيخ سمخة شيخ سمخة أشريتك لا إله إلا لا يا شيخ أحمد تشريتك لا إله إلا لا يا شيخ ويا أحمد تشريتك لا إله إلا لا

loolu mooy bàkku waa daan loolu mooy bàkku ko Cheikh Jéeri nañu installé sëriñ bi te kenn ku ne toog sa place sëriñ bi fekk na way juram sëriñ Ahmed siyaare ko jox ko wàccuwaayam loolu la ñu jàngal ci yoon wi nee na ma sëriñ Ahmed nee na ma loo wax bàyyi tasrif ci lu baax maa ko wax. na kenn ku ne toog sa place. sëñ Abdoulaye Diouf la jaxum ba daaneel na ñëpp toog jërëjëf Cheikh ñëpp toog yàlla Cheikh Samba Khaya honorable député représentant les peuples sénégalais sama jigéen ajaratu a de sugu ma nga ne toog Cheikh Samba Khaya Cheikhu Cheikh Sidi Moukhtar Serigne Fallou Sarr Diazaka ma nga ne toog famille Serigne Aliou Ndiaye Guédé Baye Serigne Ndiaye bu Serigne Aliou am nag délégation bu am solo Serigne Mamoun ak Soxna Diarra Ndiaye délégation bu am solo monsieur le maire le premier magistrat de la ville de Colom Fall sëñ Abdou Aziz ñëw na ànd ak délégation bu am solo adjoint au maire soxna Bintu bokk ci njabootu sëñ Jéeri ñëw na. sëñ Abdoulaye si sagal nga soxna Bintu nag ak lu yaakaar sëñ jéeri ndax bis bi rek la ñu am jërëjëf Fall bay sëñ bi bàyyi dama ah, ma dimbali ci image yi ñii ci sama ginnaaw nañ ma dimbali ci image yi s'il vous plaît ah non quand même délégation Cheikh Mouhamadoul Amine Diop a Dagana nii chef de délégation ki ko jiite mooy Serigne Makhtar Diop. imam ratib imam ratib bu njaareem soxna Anta Diop di caatum Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana ñëw na Serigne Moustapha Diop Serigne Lamine Diop bu Serigne Cheikh Serigne Lamine Diop bu Serigne Ndam Serigne Bassirou Diop ibnu Serigne Makhtar Diop xalifa Cheikh Amadou Lamine Diop Dagana Serigne Cheikhouna Abibou ñoom ñëpp ñëw nañu famille Mbayeen famille dañoo am décoration bu ñuy jox. sëñ Ahmad ñu teewlu ñu jokk ko sama sëriñ agsi na sama xarit sëñ Jili Mbàkke mu Seex Sidil Muxtaar xaalis su naan kulli ngir yàlla nañ ma may palko bi képp ku may wax bindal communication nga jox ko kii mais ñaan naa bu ma kenn fekk fii ngir yàlla s'il vous plaît nañ ma dimbali ngir yàlla fii sëñ Mohamed Diatara bu sëñ Moustapha Diatara ñëw na nañu installé waa kër Cheikh Sidi Moukhtar sëñ Jili Mati lay ngi nii ànd ak délégation boobu solo maam Thierno Diop sama xarit nañ leen installé waa Mbayeen famille dana wut benn distinction bu rafet fa seeni koo jébbal ki nga xam ne mooy sëñ Ahmadou waaye nañu installé waa kër Cheikh Sidi Moukhtar ba àggale sëñ Moustapha Diatara ndeysaan taxawaayam rafet na.

mbooloo mi nañ ñu dimbali ànd akuk dal ku ñu war a installé ñu installé nga toog sans wi sëriñ Abdoulaye dafa tolloon fu am solo sëriñ Abdoulaye Dieng Xumpa nañu ko may déglu ngir yàlla ak tey maa ngi ñaan dem fii bu fi kenn fekk ku am communication jox ko sama collègue bii mu andil ma ko ngir yàlla ñu ne chaise ñu andi ko ñu àndi chaise ñu yor loolu mi ngi ñëw sëñ Ablaye ñu dimbali ma aussi ci va et yi sécurité va-et-vient yi fii dañu ma ki dimbali bismillah sëñ Ablaye sëñ Cheikh Mbacke imam bu sëñ Cheikh Mbacke jaxum sëñ Ablaye de Poroxaan la jëm buñ ko dégloo rek mu daaneel Gabon production maa ngi leen di ziyaare bismillah sëñ Ablaye bismillah ki yore chaise yi nañu ci dimbali gaaw lu mu gën a gaaw ñu installé gan ñi sëñ Ablaye mën ngaa wéyal bisimilah. sëñ Modou Kéemaan Diop jërëjëf sa taxawaay rafet na bisimilah sëñ Ablaye mën ngaa doxal bisimilah. maa ngi nuyu sëriñ Cheikh imam mi ñëw léegi moom sëñ Moustapha Abdoul Ghafour sëñ Cheikh moom bàyyam dafa ma yoroon Porokhane bu egsee faw ma nuyu ko nuyu sëñ Thierno Diop mi mu àndal di borom xam-xam bu bu mën a sonn ci liggéeyal sëñ Touba moom it maa ngi koy nuyu lu bare bare di wax rek ne bi ngeen di maa ngi toll woon ci jàmm li mën a indi ci àddina te bàyyi Ahmadou Sougou dafa bëggoon lool ñu waxtaane ko insisté na ci professeur Thierno Diakhaté insisté ci ngeen ñu gën a waxtaane jàmm Baye Ahmadou dafa wax ne li tax mu bëggoon ñu waxtaane jàmm te yaatal ko moo yàlla dafa def mu bari lool ay wëllëre ci réew mi kër gu nekk am na ku ko fa yàlla booleel muy xaritam di wëllëreem mu bëgg nag ñu xam ne noo bokk lépp lii nu bokk nag ngir nu mën koo sàmm ci jàmm rek lañ ko mën a sàmme xam naa ne sax dinaa tëb lu bari après introduction bu professeur Thierno fi ma tàmbalee woon ci jàmm ca cosaan la di wàcc dama ciy tëb lu bari waaye li may tëb du tee nit ñi xam ne jàmm mooy li gën maanaam moo gën tey moo gën ëllëg li ñuy tuddee ak yéwénoo ci ñaari diggante sax jàmm moo ko mën a indi li ñuy tudde sulxu wala islaax mooy lu baax suñ borom wax na ba tàyyi ci alxuraan tudd baat boobu wa sulxu xayrun la yàlla wax maanaam lu baax a gën ñaari diggante sax ñaari diggante muy góor ak jigéen joo xam ne yàlla di leen a boole woon ci ab sëy ñu dem ba sëy ba rëngi-rëngi ñu war leen a jubale sunu boroom dafa wax ne bu ñu leen dajalee ngir war leen a jubóole jël ci bokki ku góor ki teg jël ci bokki ku jigéen ki teg in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma islaah sunu borom nee na bu fekkee lu baax lañ bëgg danaa leen gàttandoo ak jàppandal ba lañ bëggoon mën a am waaye kon yàlla lu baax da koo ñor ci loolu ni ma ko waxee léegi nun ñëpp nu war a jàngat ci lu baax ni ci sun boroom àddoo ay yoon yéen ñëpp maase ngeen xam ne walla bokk ñi jàng alxuraan di ci nab nab yi lu mu néew néew gis nañ ne na yàlla da koo may doole doole ji bari mu dem ba fàtte na yàlla ko ko joxoon mbeew te dugg ndax lim dund ci at moom na bari na kattan gi bari na may gi rëy na musta feebar daanaka musta fattu biir mosu koo metti bopp mosu koo metti mu xëy xëy loola yàgg maanaam may googu yàgg durée firaw na xëy jóg ne maay suñ boroom bi gën a kawe nu xool sëñ Amet ni suñ borom bëggee jàmm yàlla moo ko bind may ko doole dem ba waxal boppam ne gisal boppam ba pare confirmer ko ndax suñ borom moo confirmer mbeewteeg firaaw na yàlla teg ko ci kaw yoon ngir mu tuub kimtaan gu ne yàlla yut ko ko alxuraan wax na ko fa arsalna alayhim tuufaana wal jaraada wal xummala wa dafaadia wa dama ayaat mufassalaat fastakbaru yàlla won ko lu ne mu réy réylu rek waaye suñ borom tayyiwut ndax yàlla bëggul écraser na maanaam bëggu koo yàq ndax mbindee fam la moo ko bindee te suñ borom dafa teral doomu aadama waaye bëgg naa repêcher na ngir mu bàyyi lim nekkoon tegu ci weneen yoon xam ne yoon wii mu jëp mu aw bu ci bu ko wàccut ci alkande la jëm suñ borom tàyyiwut mën a muñug yàlla googu nga xam ne aji muñ ji ci turi suñ borom la bokk ni baatub assalaam muy jàmm nekke ci turu sunu borom ci la bokk na yàlla da ko muñal bi mu ko muñalee ba xam ne kii nag suñ ko artuwut musiba am suñ borom préparé yonent yàlla Muusa wastanaatuka li nafsi préparé yonent yàlla Muusa xam na yonent yàlla Muusa am na problème parce que foofa am na lu fa xewoon ci digganteem ak na mu tiit dellu fa ba pare bëgg na yàlla dooleel ko yàlla jël mbokkam Haaruun ne ko moom laa lay booleel ngir mu dooleel la te it message bi nga war a jàllale ginnaaw sa làmmiñ dafa tax message boobu na moo koy jàllale waaye danaa la jox mbóot mbóot moo xam ne ci yet wii laa koy def kon yonent yàlla Moussa euh, professeur li mu yoroon mooy puissance divine puissance divine Firawna li mu amee woon mooy puissance matérielle ñaar yi bokkuñ kii doole ji mu yor ci yàlla la ko jëlee su egsee ci na xajut ci moom ci lu genn wàllu minute mën na cee écraser Firawna li tax may leeral lii mooy dama leen di won suñ boroom lu baax ni ko yàlla bëgge jàmm ni ko yàlla bëgge bi leen yàlla armee ba xam ne ñii nag ndawi yàlla lan kenn mënalu leen dara suñ boroom ne ko nag kaay leen dem ci Firawna yéen ñaar idhaba ila Firawna innahu taxa kaay leen seeti Firawna dafa beew biñ ne bëreet mu ne leen waaye nag su ngeen àggee ci moom na ngeen wax ak moom ci yar ak i teggeen fa quula lahu xawlan layinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha li ma ci bëgg rek mooy mu fàttaliku li ma ci bëgg rek mooy mu ragal dëpp waaye bu ngeen àggee bu leen ko soow gis nga jàmm ji yonent yàlla Moussa indaale ci na moo moo créé na wàcce boppam wàcc tuuti nguur gi mën a jàkkaarloog yonent yàlla Moussa ngir discuter moom ci xam muusa mii li mu indi lu mu doon ndekete Moussa jàmm la koy indil ca mujj ga yonent yàlla Moussa xamal ko ne ko wasalaamu ala man ittabaal huda jàmm ki tegu ci kaw yoon ci njub la ko yàlla di defal kon sun borom dafa bëgg jàmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee mu ñëw ci biiri bokkam ñu fitnaal ko te ndawul yàlla la ndax bi mu indeegul daawa bi maanaam bi mu waxagul ne yàlla ma yónni kenn songu ko booba sax al amin lañ ko doon wooye mooy ki ñu wóolu ki nga xam ne ko yor sa alal bañ mu sànku moom nga koy dénk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ngir jikko ji yàlla defoon ci moom waaye bis bi mu taxawee ne yàlla ma yónni ay bokkam a ko njëkk a song wax ko lu kenn mënta dégg ñu dal di koy embargo écarté ko di xeex ak moom di ko sonal yim daj mënee su koo lim fii lenn lu ne ñu def ko waaye pour wan la ne jàmm ndekete ni baaxee ci jullit bi ni la baaxee ci kudul jullit bi te dana ci feeñ ci sëñ Touba ndax sëñ Basiru nettali na ci menanul baaxil xadiim ne sëñ tubaa bi ko tubaab yi génnee exilé ko tubaab yi xam nañ ci sëñ bi jàmm ju toll ne am na tubaab boo xam ne bu daan dem vacances soxnaa ak i doomam sëñ Tuubaa leen di dénk nga xam ne sëñ bi du nangu soxna si egsi ci moom waaye sëñ Tuubaa day wut lu dox seen diggante sëñ bi di ko waar naan ko sa borom kër de dem na waaye du yàgg léegi mu del si na nga góorgóorlu ba ginnaawam bu ko def dara lu koy naqari loo xam ne bu fi teewoon fekke ko suy dem sëñ bi jël dërëm yi nekkoon ci wetam jox ko mu yóbbaale te ñoom ñoo ko exile woon léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam bi ko yàlla yónnee jox ko doole lu ne mu muñ ko ñu dóor ko xaañ ko sonal ko muy def ay propagande ngir dugal leen ci lislaam lu ne ñu def ko ba génne ko makka gi mu gënoon bëgg gis nga bi mu demee ba jekku mooy ginnaaw fatfu xaswati makkata yonent bi doole jëpp nekk ci loxoom dafa yéeg ci kaw safa jàkkaarloog mbokkam yooyu ku daan fitnaa la ko sonal dal wax ak ñoom yaa maachara xurays yaa ahla makka maada taraw na anni faailun fikum léegi nag doole jaa ngi ci sama loxo nu ngeen yaakaar ne noonu lay def ak yéen ñu ne ko anta axun karim yow mënoo def lu dut lu tedd ndax mbokk mu baax nga mu dal ne idhabu antumu tulaqa dem leen jéggal naa leen kon loolu mooy musaalama moo tax suñ borom na ko wa in janaxu mi salmi fajnax laha waxtu wu ñu jengee ci jëm ci lu baax jàngal fi saase bu ko xaar looloo taxoon sax yonent bi ak accepté sulhu Hudaybiya sulhu Hudaybiya ay détails la duma ma ci sori bi nga xamee ne nag yonent bi alayhi salaatu salaam def na noonu Sëñ Tuubaa mi ko doon ci biir ak ci biti sëñ bi dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan sëñ bi bi mu ñëwee moom it ñu sonal ko coono yi ñu ko sonal moom itam dara indiwu ko moom sëñ bi lu dul continuité maanaam woote bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon woote sëñ bi wéyal ko ci la doon liggéey muy ndono loo xam ne ndono li ginnaaw donn nga ko li daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dalay dal di dal sëñ bi bi mu ne bëreet wax mooy unaa jiihi suñ boroom lay waxal unaa jiihi fi barrin wa bahrin wa artaji wa tirba maa ngi déyaaleeg sama boroom ci jéeri ji ak ci géej gi sama yitte doonu ludul naa baax man ba noppi waaye naa baaxal sama waa suuf maanaam naa def ci ñoom lu baax daldi ne man sama xol bi aw yiw laa ci ëmbal ku yàlla bind yan wii fu aadil xayra lil xalaayiqi jullit ñépp mbindeef yi sax la wax berul jullit ñi alxalaa'iq la wax mbind mbindeef yépp aw yiw laa leen ëmbal bi nga xamee ne yiw woowu mu leen ëmbal li ko koy taxa man mooy mu génn dem liggéeyal yàlla bi muy génn bayit wi mu bind bayit woowu ci la ñépp tabbi te am nag njaboot ñu teqale ko ku njabootam am na ñu ko yaakaar waaye moom lim ñaan suñ boroom mooy tukki bii nag ma ci nekkal ci kun fa yakun ba faw te nanga ko def muy fajoog aajoog bépp mbindéef ba pare waxaat ne ci xasiid ak rabbi bi maa yasrahul azhana qad fajaa te loolu sëñ xaadim ñang sëñ xaadim ñang moo sëñ mouhamadul mamoun ñang ñoo bokk waay jur sëñ mouhamadul mamoun ñang mi ñëpp xam sëñ xaadim ñam ak sëñ basiru mbàkke moom cheikh mouhamadul fadil ñoo bokk wayjur ku bind lii an bal yow ku ko bind Cheikh ku bind lii waaw ma tënk ko kon bisimilaay ah d'accord euh, sëñ xaadim ñang dafa maa wax ne ma xasidak rabbi bi maa yasrahul azhana xat fajaa bi ko sëñ Tuubaa di bind moo ma ko wax ci làmmiñam nee na bi sëñ bi bindee yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadin yow buurub buur yi yow mi nga xam ne màgg nga walis di fayantoo kenn nee na bi sëñ bi bindee loolu rek suñ borom da koo dëy ne ko loolu nga bind loo ci teg rek dinaa ko def mu daal di bind irham jami al yaa haadiyan radaa bi ko tubaab yóbboo ba mu dikk ba gañe ngañaay loo xam ne su ko soobee fayu ndax fayu suñ borom ma ko wax sañees na ko wa in aaqabtum fa aqibu bi misli bi waaye wala in sabartum la huwa xayrun lissabirin booy fayu fayul kem liñ la tooñ waaye boo muñee moo gën wa jazaau sayiati sayyi'atun misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah lu bon lu ñaaw lu ñaaw a koy fay waaye boo jéggalee te muñ sab yoo la nga ci loxo yàlla sëñ bi mu ñibbisee am kattanu fayu wax naa ko professeur bërki démb dama ko ne sëñ mooy koo xam ne dañ koo tooñ te tooñ gi moo ko bindal boppam ay yoon moo bind wax ne zalamani man axrajuuni min duyuur bi xayri xaqin tooñ na ma ñu ne ko ñu la tooñ mu ne ñi ma génn samay kër ci lu du dëgg yaa jumlatan xat sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuuni génne ngeen ma dellu wax ne bëgg rasulullah yi tax ñu génne ma xat axrajuniya min ardi li buxdihimu xayral waral Mustafa waaye loolu lépp bi mu ko def bi ñu ko defee mu génn dem xeexal boppam xeex bu àndut ak benn fitna reyul kenn ba nga ñaay li mu doon wut yàlla jox ko ko mooy li xasida gi gaa yi mujj a jàng fii léegi te sëñ bi wax ci ne wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaau nii fil barri wal baxri daa nafin bila bararin nga ñaay loolu bi mu ko amee ba xam ne léegi nag doole jëpp yàlla jox na ko ko teñ wax ne fayu jëggale ki ko man dëgg mooy ki am kàttanu fayu ba noppi jéggale ngir yàlla xayrul afwi ma kaana indal maqdira sëñ bi bi mu dikkee xam ne doole jëpp daje na ci loxoom ndax bu fekkee maanaam moyens humains la mooy ay nit sëñ bi yàlla may na ko nit ñépp bu dee moyen matériel suñ borom jox na ko li ci poos yi nit ñi sëñ Tuubaa jaral na leen bu dee moyens intellectuels mooy xam-xam professeur Jaxate ngi nii ak ay nattangoom ñu jógoon ngir songoog tubaab yi pour fayu ci sëñ tubaa ñu réviser procès wu tooñ giñ tooñ sëñ tubaa intellectuel yi jóg avocat yi sëñ tubaa yi sol seeni robb juge yi sol ko ñu jàkkarlook tubaab yi musiba am parce que ko extermination des juifs gis nga li xewoon sëñ tubaa nag bi mu dikkee yooyu yëpp amatu ci soxla dafa tourner la page moom li ko taxoon a jóg mooy am li muy wut mooy mu sauvé boppam sauvé aw xeetam di ko ko yàlla joxee nag mu ne kon léegi nag li ci des muy fayu amatuma ci soxla afawtu anil aadai turan afawtu di wajhillaahi ma saf wi kalkali saf wu kalkal mooy dama jéggale ngir yàlla am naa doolee fayu waaye bàyyi naa ama firaaqiya al ida afawtu anhum wa lam usrik wa ma hafawtu bis bi ma taqalikoog ñoom laa leen jéggal njëggal googu dal di mat sëkk ba bi mu nekkee ci géej gi di bind dafa am bis mu ne suñ borom waaw yéefar yi di dee nii li leen di rey lu mu doon sëñ bi ne ko sa xalima ak jihaad gii nga yor boo ko arrêté wut yéefar yi danañ dee ba jeex mu xëy teg xalima yi law an na ni moo ko wax lam atrukil kitaaba mujahidan biha ay bil kitaaba dawil la maata bil wabaai kullu kaafiri in lam tatuubu lil ilaahi alxaafiri lakin afawtu an jamii naasi waaye jéggal naa ñépp te yàlla tax lu mu ko jural yàlla jël xol yépp jox ko ba muy liggéey loo koo xam ne pas-pasam wékku ko ci sëñ bi waaye liggéeyal sëñ bi jaral na ko parce que xam na ne sëñ Tuubaa moo koy sauvé looloo tax sëñ bi daan wax ne na ngeen moytu ak tooñ loolu nag bu ko sëñ bi waxee beralu ko murit yi ko topp rek sëñ Tuubaa bu daan wax daf ne daf naan bu may laabire ki may waxal mooy li man yaqbalu minni an nasiha ki nga xam ne su ma ko laabiree mu jël wax ji am na ci wàll daal ne na ngeen moytu ak tooñ te bu ñu leen tooñee bu leen fayu kooku bëgg na stabilité kooku bëgg na jàmm na moytu tooñ waaye bu ñu la tooñee sax bul fayu kooku bëgg na jàmm li ko gën a firndeel mooy loolu waxi sëñ boobu Cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg te mun Mountakha Gueye jàngkat moo ma ko dafa am ku Mountakha Gueye ñëw nee na nettali ko sëñ bi sëñ bi ne ko moo tooñ de mu ne ko waaw Mountakha ne ko waaye mbaa bi mu la tooñee meroo mu ne ko ah mer moom def naa ko mu ne ko yow nag kon sag murit des na daal di ko ne Mountakha mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo dee dox. nit dab la dóor la boo geesu sax fayu nga li sëñ bi waxoon ne na nga moytu tooñ waaye buñ la tooñee bul fayu sëñ tubaa nag jéggaleem gi dafa àgg ci tubaab yii nga xam ne ñoo ko génne woon sax mujj taxaw joxoñ ko baaraam ne ko àddina yaa ci gën Jean Antoine Lesselve mooy ki daqoon na tooñ sëñ tubaa ci àddina parce que sëñ Basiru nee na ci kër gi la daan fekk sëñ bi kees bu mu yaakaar ne sëñ Tuubaa nga fa bu ñëwee du jaar ci bunt jaay si lay rocci rek dóor permi xar mu bett sëñ bi waaye bi ko mag ñi bi mag ñi nee sëñ bi dañoo bëggoon nga wax sa borom mu dox sa diggante kàccoor bi yi mu lay def sëñ bi dafa muuñ ne leen yéen xamu leen kii li muy dox yàlla nee na kii samay tuuma lay tegg si defe naa rapport bi dàq ci tubaab yi bind ci colonialiste yi rapport Jean Antoine moo ci dàq sëñ Tuubaa nag moom lay tëje jàmmam jooji bi mu ko indee dafa wax ne ñépp a ko bokk maanaam bi nga xamee ne yàlla jox na ko loo xam ne xam na ne du jeex ndax ci yàlla la jóge dafa wax ne sama xol yàlla yaatal na ko sadriya masruuxun man xajoo naa ñépp looloo tax sax mu xamal ay taalu taalibeem ne leen fu ngeen fekk lu baax ak fu ngeen ko mën a fekk na ca seen loxo dugg maanaam li ñuy wax clivage sëñ Tuubaa xamu ko woon wacca taxas benn boor mosta doon mbirum sëriñ bi moo tax kilifa kilifay yoon wépp kilifay yi àddina bépp jàmmoo ak moom def ko niñ ko def ndax aalam bépp àddina bépp la yéene jàmm am na ku ma yónnee démb benn journal officiel boo xam ne français yi ñoo ko bind vive maanaam ñu ngi ci bind vive Ahmadou Bamba te li ko waral mooy tubaab yi sëñ bi da leen a dimbali woon ci jox leen cinq cent mille francs CFA à l'époque c'est un demi demi million tey boo ko doon évaluer ci francs CFA ñaata lay doon sëñ bi defal leen ko dimbalee leen ko journal boobu ci fin bi dañ ne Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko war a rendre hommage bi mu yellool bind ci suuf vive Ahmadou Bamba te léegi noonu yooyu mu génne woon ñoo ko seereen lool sëñ ba Bassirou nag nee na alxaqu maa shahida bihi l aada dëggi dëggi seere mooy li nga xam ne sab noon moo la ko seeree te sëñ Tuubaa ñoom maase nañ xam ne jàmm jim yéene ki ko gën a jege moom la yéene ki ko gën a sori ndax jàmm rek la yàlla def ci Cheikhul Khadim kon mbokk yi loolu wan nañ cee jànge lu bare bare bari xam ne jàmm moo gën fii moo gën fële jàmm moo gën fu ne waaye jàmm gën ci noonu ci Sénégal Sénégal fii mu toll kenn ku ne boo xëyee li nga war a yittewoo mooy jàmm am ndax bu jàmm amee sa jàmmi bopp la président de la république bi yor réew mi jàmm jiñ ko jàmm ji du jàmm moomu ko yow ci sa bopp am nga ci wàll kii di jàll kii di jaay ci biti am na ci wàll kii fanaan ci mbedd mi am na ci wàll ki ne ci biir kër gi di fi yeewoo am na ci wàll donc jàmm ñépp la jig jàmm mooy xam ne mun mooy loo xam ne mun te ñàkk ci doomu aadama faw nit kii di cultiver toujours loo xam ne moo koy may jàmm xam naa kon ngir njëkkante ak waxtu wi damay tënk foofu sëñ Ahmed di jéggulu kàddu gi ñu jël ci sa kanam di la wax ne Baye Ahmadou Sougou lii la sakku woon sar sant ma ko mën ak professeur euh, Djibi Diakhaté mu def introduction boo xam ne introduction bu am solo la waaye sëñ Ahmed li may tëje nag Baye Amadou nag waxal ak moom ndax euh, gis naa mu jël benn enveloppe kaki duy ci xaalis ba mu fees dama dema kii boo paree yaa ko moom waaye ginnaaw xam naa jikkoom mën nañoo génn mu rëkk ma dama yoruma lu ma la jox boo dee dox nga dox loo xam def waaye jàpp ci boo ci jàpp du baax maa ngi jégalu ñëpp yàlla na nu fi suñu borom dajalewaat ay at yu bari lool barke Cheikhul Khadim sama sœur Soxna Ayda Sugu maa ngi lay siyaare di siyaare bokk yi ma fekk yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Abdoulaye Diakhoumpa waxtaan wi am na solo lool yàlla na yàlla fay la te may nu dégg ak topp muy boroom xam-xam waaye am wàccuwaay wu am solo ci yoon wi ndax fulku bi nga xam ne ñu ngi koy jàng ci. ci weeru koor yi moo koy jàng ci kanam al sëriñ Alaaji mu Cheikh Amadou Bachir yàlla na yàgg ta nga am ci ngërëmu sëriñ Touba Mouhamed Isaaxa Diagne mooy représentant le grand sëriñ Pape Ibrahima Diagne muy invité d'honneur ci bis bi fonk sëñ Ahmadou lool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 woote 77 251 04 05 Tawfekh